sëñ Tuubaa bi muy feeñ jamono fii fi Mbàkke Bawol 1853 ba feeñ jamono fi Mbàkke Bawol bi nga xamee nag ba xam ne àddina dox na ba sori mu daal di dikk ba sëñ muy jébbalu Cheikh Adama Gueye Mbaabu Ibra Sarr Njaañ Ibra Faati Mbàkke Maxtaar Penda Daaru Salaam Cheikh Masamba Mbàkke Cheikh Ahmad Ndumbe Mbàkke Cheikh Masamba Diop Saam Saab Sang Abdourahman Lo Ndaam Mbàkke Busa Gede Marubba Gueye Tiwaawoon Aliyu Juuf Lambaay Babacar Cargaan mamar maame mbay amadou kabir mbay bilaal jiili mbay ma baabu gey mbaabu yéeri jaxat xelkoom amadou lamin gay jolof saajey mbay samba jaara mbay maxtaar gay jolof aliyu sekk wanaar saalum balla faali jeng tafsir buubu sidda cilla jéeri waadaan sugu mbay saar njaareem aliyu ture ngën isaa jenn lagan suleymaan jóob ma Yacine Dieng Guyaar ma Lamine Ndiaye Xabbaan Maxtaar Touré Sadix Modou Fa Jama Ñang Gora Bakhoum Dooru Bakhoum Abdoulaye Diané Ndiané Aliou Doofa Saloum Balla Toro Mbakke Modou Gay Jummooy Gay Alsey Ndiaye Rijaadu Laay Moor Wanaar Wanaar Ngën Cheikh Ibra Fall Baabul Muridiina Cheikh Madi Ndiaye Cheikh Mor Kumba Kan Mbaal Cheikh Amsatu Jaxate Cheikh Modou Lo Dagana Cheikh Aliou Diop muy ñeent fukki góor yeeg juróom jébbaloo Mbàkke Kajoor